jëf ci ànd beek télévision Future Média mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi euh, ponk ci gën a fës bokk na ci benn doomu Sénégal bu ñu faat fële ca Franceville nekk ca Gabon ñeent fukki at ak juróom ca la toll woon waa jooje doon wuyoo euh, ci turu Amadou Ba moom nag mi ngi fekk baax fii ci diwaanu Matam néewam ñi ngi ko fekk ca boutique ba mu doon jaay ab commerçant la woon jege ñaale yi Khalifa Sall bokk na ci euh, Bamba faal jamono ji ñi ngi déglu procureur ñoom ñooñu nag ñu ni laale nañu parti socialiste ba ñu songoon dinañ ci jokkoo ak sunu ndaw Alassane Ba ma nga ca euh, tribunal euh, sunu gantey ji Serigne Assane kan la moom mooy porte-parole bu jeunesse pour la démocratie et le socialisme euh, moom mooy ganu xibaar yi beneen ponk ci biir xibaar yi ñeel campagne bi jëm ci njaayum gerte bi fii ci Sénégal nee nañ nag mi ngi dox bu baax a baax mbootaay gi ëmb mbootaay gi ëmb opérateur privé yi ñoom ñoo ko xamle ñiy denc nag wàllu gerte gi ak transporteurs yi nee nañ nag diiru weer képp la ñuy jaay ci gerte ëpp na fukki junni euh, tonne euh, tàggat yaram sunu gaynde yi tey la ñu xëy amal seen tàggatu bu euh, mujj tey ci ngoon nag la ñu war a wutali fële ca kongo mu ajju nag ci Coupe d'Afrique de Nations bi nga xamante ni nii ñu ngi koy waajal ca Gabon muy 2017 mbokk yi ponk yaa ngi nii ci yaatal bi léegi léegi. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Future euh, Média ni ñu ko waxee ci ponk euh, xibaar yi ca Franceville nekk ca Gabon benn doomu Sénégal nag la ñu fa daal di euh, faat moom moomee toll woon ci ñeent fukki at ak juróom ab commerçant la néewam ñi ngi ko fekk ca boutique ba nga xamante ni nag fa la doon jaaye waa joojee ni ko waxee rek kon ma ngay wuyoo ci turu Amadou baax fekk baax fii ci diwaanu Matam dinañ ci dellusiwaat ñu daal di dem ba tribunal tribunal boobee nga xamante ni nag la ñu nekk euh, fi mu ne nii euh, kii di Bamba faal moo fa nekk jamono ji Bamba Fall ak ñamu àndal di jege ñaale xalifa Sall ñoom ñoo ñu njoxt nii euh, dañu laale ak màkkaanu parti socialiste ba ñu songoon loolee tax na ba procureur kon woolu woon leen ci ñi ngi déglu procureur fi ne nii Alassane Al Assane Ba mi ngi ci ligne bi Al Assane maa lay nuyu. fay naa la fay naa la Fantine. Alassane ni ñu ko waxee rek euh, Bamba Fall ak ñamu àndal fi mu ne nii procureur la ñuy euh, déglu mu aju nag ci mbir moomee ñu njoxtu ni laale nañ ci muy màkkanu parti socialiste bu ñu songoon Alassane fu ñu ci toll. mu nga kon Fantine ni nga ko waxee euh, noonu la ci jamono ji nag bu ñu sukkandikoo léegi nii ci xibaar yu ñu jot avocat yu ñoom Bamba ñu ngi fexe ba négocier leen ak doyen de juges bi nga xamante ni mooy di sous contrôle. mu mel ni nag euh, juge du premier cabinet Samba Sall moo war a yor euh, dossier bi bu ñu sukkandikoo léegi nii ci ay xibaar yi nga xam ne euh, jot nañ ko fii pour le moment nag kii di Bamba Fall ak ñi mu àndal ñu ngi ci kaaf xaar nag war a xaar kii di procureur de la République mu déglu leen xool seen situation suñ ko nar a wékk euh, fii nag euh, Fatimé mun nañu mun nañu nemmeeku ab mobilisation bu takku ñu ñëw nag jàppale ñi nga xamante ni kii moo di Bamba Fall ak ñi moo àndal te nga xam ne jamono ji jàpp nañ leen ñu leen di toppee lii di tentative d'assassinat maa dem fexe faat euh, bëgg faat bakkan ay violence ak ak yi nga xamante ni yàq alal yi nga xam ne kenn moomuñu ko alal yi nga xam ne ñeneen ñoo ko moom ak menace moor Euh, ay côté politique nag gis nañ fi ay euh, kii nga xamante ni moo di Babacar Gaye bu parti démocratique sénégalais ñëw na Malick Gakou bu grand parti euh, Khalifa Sall Barthélémy Dias ak yeneen responsable politique ñoom ñoom ñoom tamit def nañ le déplacement ñëw fii di palais de justice bu Dakar fas yéene nag wéetali jàppale ñi nga xamante ni ñoo di Bamba Fall ak ndaw yu bokk ci parti socialiste nga xam ne loolu lañ leen toppee ñoom ñi ne sax nekk ay pro Khalifa sal xam nañ ne jamono jii nii ñaari camp ñoo nekk ci parti socialiste ci jamono ji nag euh, Fatkine dem lii mooy li nga xamante ni gën na fi fës lool ci ay ci xibaar euh, fii ci palais de justice de Dakar du ñàkk nag fii ba quinze heures et demi ñu xool ginnaaw bu ñu dégloo euh, bu procureur de la République dégloo ñoom Bamba Fall ñu xam ñoom seen Alassane ñu féete al très rapidement avant ñu tàggatoo noo gisee ambiance bi est-ce que ànd nañu ak dal wala yooyu waaw waaw waaw fii moom fii moom macha allah ñoom ñu ngi toog bi waxtaan ñeneen ñi bi lire ay journal ñoom ñëpp ñu ngi serein calme xam nga amul benn benn euh, euh, yëngu-yëngu wala leneen ñoom ñëpp ñu ngi tey ànd ak dal di dégg di xaar nag li nga xamante ni moo di mooy tukkee ci euh, jàkkaarloo procureur de la république ak ñoom Bamba Fall. Euh, ñu di ko jaajëfal bu baax Alassane Ba doon jokkook ñun ca euh, tribunal sunu gan euh, waxoon naa ko ci ndoxte li Serigne Assane Kane porte parole jeunesse pour la démocratie et le socialisme Serigne Assane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi. maa ngi nuyu tamit suñ mbokk sénégalais yi ñuy seetaan yëpp ci TFM. ni ma ko waxee nga yore kàddu jeunesse pour la démocratie et le socialisme tey ji ngay wax ci seen tur euh, ak euh, li ñu euh, nemmeeku ca tribunal gis nga ko muy Bamba Fall ak jege ñaaleem jege ñaale sax Khalifa Sall la ñuy wax ñu xëy woolu leen gannaaw lu ñu njoxti ne nag ne laale nañu ci muy màkkaanu parti socialiste bu ñu songoon yow sa première impression déjà tey ji ci ci ci seen janoo ak procureur. waaw ñun dey coow ak fitna bi biir parti socialiste. ba tey mu teeree ci yoon képp koo xamante ni militan nga wala ngay responsable boo xam ne li la yitteel mooy lu dooleel parti socialiste mënuloo lu dul li xew tey ci parti bi ndax nag dañu jàpp ni parti socialiste bu fekkee dafa am ay bànqaas coow lu mel nii bu amee war nañ ko mën a waxtaane ci sunu biir ba trouver solution plutôt que ñuy livrer nos camarades de parti à la police et à la justice loolu moo tax ñun appel bi ñu am ñi ngi koy jëmale ci ñi jiite tey parti socialiste ñi ngi ñaan direction parti socialiste nañu revenir à la raison ñun ñoo bokk parti bi ñi ngi leen di ñaan plainte bi ñu déposé woon au niveau de la police ginnaaw bi fitna yi amee fitna yi moom ñu ngi koy ñaawlu waaye nag ginnaaw ba fitna yi am na ba pare plainte bi ñu déposé woon ñu ngi ñaan si njekk ak si teraanga direction partie socialiste nañu retire plainte bi ñu ngi leen di ñaan nañu fexe ba suñu camarades yi ñuy entendre tey ñu libere leen ñu dellu ci seen ay famille nga defe ni deltu gannaaw dana yomb ak bu ñu xoolee parti bi tey jii euh, coow li ko lëmbee fanta siro gi ñi aw gauche ñi aw droite te boobu ndëgg ni mënuñoo gis solution. waaw mais coow li am ci biir parti socialiste bu fekkente ni dañuy wax dëgg rek wax dëgg yàlla. loxo ñi jiite parti socialiste setu si ndax nag coow li li ko waral yëpp mooy ñun débat ak démocratie moo nekkoon sunu taarixa waaye nag li ñu seetlu mooy depuis plusieurs mois li ñuy wax débat dafa tumuranke ci biir parti bi ndax ñun sunu parti comité centrale mën nañ ko considérer comme sunu parlement bu fekkee dafa am de grandes décision à prendre dañuy convoquer comité central ndax bànqaas boobu boo sa demee toutes les coordinations am nañ fa ñu leen fa teewal tous les organes intégré wala affiliés am nañ fa également ay représentant te bankaas boobu ñetti weer yu nekk dafa war a daje ñeenti weer yu nekk boog dafa war a daje waaye fii may wax ak yow tey depuis lu ëpp at daanaka comité centrale dajewul bureau politique également depuis plusieurs mois dajewul waaye nag militants yi bu fekkee dañu am xalaat ci parti bi ni muy doxee amuñu fenn fu ñu ko mën a waxee loolu ci bànkaas yooyu léegi bànkaas yooyu nag buñ dul daje di waxtaan ana fan la militant yi di joxe seen xalaat loolu moo waral fitna bi ak coow li. nga bokk ci jeunesse pour la démocratie et le socialisme dañ leen koy faral di tuumaal ne euh, léeg-léeg da ngeen di xaw a def lu ñu tuddee démonstration de force mu mel ni yéen euh, parfois da ngeen di ñëw di imposer mu mel ni léeg-léeg ñi nga xamante ne wax nga ko léegi ñooy seen jiit parfois nañuy doxalee du leen neex ba tax na yéen da ngeen di ñëw wane seen seen waaw ñun mosuñu def démonstration de force li ñu def mooy ay militants lañ ay responsables lañ tànn bokk ci biir parti socialiste moo tax ñun li ñu yitteel mooy parti bi gën a am doole parti bi di dox ci yoon waaye aussi di dox ci démocratie loolu moo waral sax depuis quelque mois lancé woon nañ benn pétition di ko adresser à tous les militants à tous les responsables di leen demander ñu signe ko pour que parti socialiste génn coalition Benno Bokk Yaakaar pour amal liste ci élection législative yi ñu jëm pour mën a présenter également un candidat socialiste ci élection présidentielle yi ñu demal 2019 te fii may wax ak yow tey am na 40 000 militants et sympathisants du parti socialiste yoo xam ne xaatim nañ pétition bi. délai de clôture bi fin février la bu ñu amee 200 000 signatures danañ ko déposer incha allah ci table secretaire général Ousmane Tanor Dieng di ko xamal ni fii mu jëmale tey parti bi du foofu militants yi lu ñu bëgg mooy parti socialiste di dox ci démocratie parti socialiste génn. coalition Benno Bokk Yaakaar ndax sunu place du foofu. ngeen yaakaar ne du ngeen dem ci ni ñu duppee en champ dispersé parce que euh, ni ñu ko wax noonu la am na ñoo xamante ni euh, xëy na yéen a ngi lancé appel boobu waaye mën na nga ni fa ñu ngoy ña nga fa ngoy te bokk ci coalition bi yéen ngeen fare ñeneen fare neneen est-ce que jàppoon ni loolu day leen di xaw a naxasal tuuti ci wote yi ñu dëgmal surtout. mais évidemment te loolu bu amee yaakaar naa ni kenn rek moo ci gagné. mooy président Macky Sall ak ñi mu àndal ci biir alliance pour la république moo tax nag ñun c'est leur pour que tous les responsables revenir à la raison ñu xam ni ndono Léopold Sédar Senghor kenn du ko saggane moo tax encore une fois dañuy lancer appel responsable yëpp nañu arrêté xiiro bi arrêté coow lii yëpp retrouver au niveau du parti socialiste waxtaan ba mën a trouver solution loolu moo gën coow li. alors c'est quoi lan nga jàpp ne mooy stratégie bi bu fekkente ne ni ma ko waxee rek léegi ma rebondir si un peu ñii dañu des euh, ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñeneen jàpp ni xëy na war nañoo mën a présenter seen candidat si fois ñee resté fële euh, lan nga jàpp ne mooy stratégie bi pour que vraiment solution bi benn rek la mhm. mooy question bi mel noonu benn bànqaas moo ko war a tranché mooy le comité central bu ñu convoqué comité central de manière régulière et transparente instance boobu décidé que ni parti socialiste dafay ànd ak Benno Bokk Yaakaar ay la yeween militant bu nekk da ngay tënku ci décision boobu boo si d'accordul nga seet neneen mooy def bu fekkee ne tamit comité central dafa décidé que ni parti bi dafay génn coalition Benno Bokk Yaakaar secrétaire général parti socialiste bi ak ñi mu àndal ñoom tamit dañuy tënku ci décision boobu waaye amul benn responsable doonte yaa jiite parti bi nga am pouvoir que ni yaay décider à la place des 300 000 militants socialistes loolu jaaduwul. Mhm. ñu revenir un peu sur euh, Bamba Fall et compagnie les proches de Khalifa Sall comme nu ñu koy faral di waxee tey procureur woolu na leen euh, lan nga njoxtu ni xëy na mën na faa tukkee maanaam loo xamante ni mën nañ ko xaar ci seen digg ak diggante ak procureur est-ce que jàppoon ni euh, tuuma yi xaw na dis ci seen doot waa ñun de acharnement rek lañu gis ndax démb Barthélemy Diaz la woon tey suba nag kenn xamul kan lay doon waaye ñun daal li ñuy wax rek mooy décision bu ñuy mën di jël buñ ko teg ci jaay doole buñ ko teg ci kumma am ndey ak kumma amul ndey nañu jël décision boo xam ni moo méngoo ak yoon ndax li xew le 5 mars 2016 ci biir parti socialiste ku ne xam na ko ay nervi ñëwuñu fa ñi fa nekkoon ce sont des militants ce sont des responsables ñëw pour wax seen xalaat parce que tous les mécanismes de débat sont verrouillés à l'intérieur du parti loolu moo indi coow li donc solution bi nag du police du justice mooy waxtaan biiru nekk njiit ñi daal ñi responsable daal ngeen ngeen jàpp nii lu jiit njaak ñooy njaak effectivement parce que nag pootum biir nekk mais ku ko génn ci biti yow yaa responsable mais dans tout ça est-ce que yéen gi ngi entamé ay ay discussion en fait ñoom ndax ubbil nañ leen bunt yi pour wax ak yéen parce que wax nga ko léegi li am solo mooy ngeen pencoo waxtaan ba gis solution est-ce que ubbil nañ leen bunt yi. waaw xam nga pëccëxoo bi am biir parti socialiste moo tax tey dafay jafe sax mécanisme yi parti bi taxawal pour mën a tranché ces contentieux kenn du leen mën a utiliser ndax ñoo ñuy wax tey mais commission de discipline balay ñuy def dara dañ leen waroon a entendre. mais kenn mësu leen entendre xanaa nit bala nga koy yóbbu au niveau de la justice mais waroon nañ leen a déglu d' abord ci biir jalgati étape alors. voilà loolu mooy problème bi cest à dafa am commission de discipline bu fekkee dafa am ay militants wala responsable yoo xam ne dañu teggi yoon partie bi dafa prévoir commission de discipline moo leen war a déglu léegi nag bu loolu passé bu fekkee dañu war a jël ay sanctions ñu jël ko teg ko ci seen kaw bu boobaa kenn du wax ndax jaareel nañ ko ci yoon waaye nag dañu sauter commission de discipline dem directement vers la police comme si tey dafa am un acharnement vers certains responsables du parti socialiste parti bi également am na lu ñuy wax un comité des sages muy ay mag yoo xam ni bu coow yu mel nii musaana am dañ daan woo toutes les parties concernées waxtaan ak ñoom ba solution am waaye tey li ñu seetlu mooy pëccëxoo fitna coow te loolu du def lu dul faagaagal sunu parti. <laughs> ñaanuñu ko yàlla mais si tout toutefois euh, euh, ay sanctions yu sévères tege seen kaw mooy laaj bu mujj bi d'ailleurs quelle va quelle va être réaction lan lan lan mooy war a nekk seen réaction. mais ñun li ñuy wax rek mooy sanction bu mu mënti doon. nañ ko teg ci yoon waaye buñ ko teg si jaay doole buñ ko tegee aussi si jaay doole mais tous les démocrates de ce pays danañ mobiliser ba combattre ko incha allah. Mhm, ñu di ko jaajëfal bu baax Serigne Assane Seck may fàttali ni yow yaay porte-parole jeunesse pour la démocratie et le socialisme euh, jaajëfal nañu la ci wisi bi xibaar yi ñu woyul ko wax ci commission yi nga xamante ni moom la ñu samp fële euh, ca diwaanu waa Kaolack commission boobee nag ngir euh, muy defar carte yëngu kon ci mbindum carte d'identité yi Mariama Sarr nag mel ni kuy tontu ku jëkk politique gi euh, foofe la mu xamle nag moo di nekk ku jëkk politique gi la ñu bëggoon amuñu ko moom meex bu Kaolack ndax ne na tey jii li nga xamante ni moom mooy bindu bi jëm ci carte biométrique yu yees yi daal dinay fësal euh, lu ni mel loole yëpp ñu jàpp ni ñoom bu ñu ca tënkoo fa ñu bëgg a yegg ci seen xeex bi euh, dañu dinañ ci dina ci yegg ñu teewlu ko moom Mariama Sarr askan wu taxu di ay militants ñoo feesoon dell ci salle de conférence bu mairie bu Kaolack li ni mel nag bokk na ci ni ñuy def ba saytu fichier électoral bi ngir boobu boobulee opération nag am na ay militants yuñ daal di euh, tànn. Euh, dafa am lu gouvernement état du Sénégal soobu Sénégal soobu ci muy defaraat fichier bi nga xam ne mooy fichier électoral bi loolu nag dafa laaj euh, taxawaay bu rëy taxawaay bi mooy. dañu war a sensibiliser nit ñi ñu xam lan moo tax ñu bëgg a renouveler sa fichier là parce que bu njëkk di nga gis fichier yi boo demee di voter sax da ngay gis fi ñuy signer tuuti signature ngay gis ci page c'est-à-dire ñu bari ñëwuñu ñëwuñu parce que ku voté wul doo signé loolu nag li ñu dajale muy stock mort mu am ñoo xam ne soit dañu génn àdduna soit dañu toxu dem ci beneen région wala Euh, nekkatuñu sax Sénégal ñu bind leen ci fichier yi te am ñeneen ñoo xam ne war nañu bind war a mën a voté te binduwuñu loolu moo waral programme bi nga xam ne président de la république jël na ko pour ñu euh, xoolaat fichier bi am yu ñu ciy dolli muy refonte partielle. teewaayu njiitalu comité yi nag ci boobu boobule réunion am na solo lool ndaxte ñoom ñooñee moo xam góor wala jigéen daañu leen dénk ngir ñu saytu militant yi nga xamante ni mënuñu woon changer seen carte d'identité waaye te ñi nga xamante ni amuñu benn kayitu juddu. loolu nag bu amee. ba ñu taxawal ko ñun suñu devoir mooy ñu sensibiliser tey nag présidente comité yi la ñu jël mais dana amaat ay ndaje yoo xam ne ñëpp lañ ciy boole danañ ci boole couche yëpp informer leen wax leen njëriñu euh, lii nga xam ne mooy réinscription yi ñu dem ñi amoon dem réinscrire euh, defaat seeni carte yu bees ñi mosul am carte ñu am ko xa wax nañ leen ñoom ñëpp ni ñuy def ba am ko wuti extrait de naissance certificat de résidence pour mën a déposé am ko ñu amul extrait xam nañu fi ñuy jaar expliqué nañ ñu ngi leen di accompagner aussi pour ñoom ñu mën koo am lool yëpp ñu ngi koy jël jël ay dispositions yoo xam ne photocopie sax dina leen yomb ndax am na ñoo xam ne sax dañuy bëgg a dem photocopier mais da leen di jafe loolu yëpp ñu ngi ciy waxtaan tey ak sunu présidente yi xool nu ñu leen di accompagner li ci war a génn muy moyen financier muy xalaat. muy accompagner leen lépp dinañ ko def pour ñu mën a réussir. beneen ci xibaar ñeel boobu leen daje bokk na ci li ñuy samp ci lu bees ay centre ak ay commission ci yenn ci quartier yi fekk baax fi ci diwaanu Kaolack. sensibilisation bi nag euh, tey dañ ko lancé mais dana continuer ndax danañu jël sunu xaritu communicateur traditionnel yi. ñu def ay caravane de sensibilisation danañ ko def mi janvier defaat ko mi février ñu sillonné quartier yi wax leen lan mooy njëriñu inscription yi ndax citoyen kat bu amul carte pour voter defe naa ne citoyen war na ko xoolaat. ngir ñëpp mun a bindu ci lim bu taxu ci liste électorale yi. mairie bu Kaolack nee na de dina organiser ab caravane de sensibilisation ci biir diwaanu Kaolack gi yëpp. niñ ko waxee woon ci ponk xibaar yi commercialisation ñeel nag njaayum gerte bi ci Sénégal mu ngi dox bu baax a baax fédération bi ëmb opérateur privé yi denc gerte gi ak transporteurs yi ñoom ñoo ko xamle nee nañ nag diiru ko weer képp la ñu jaay ci gerte ëpp na fukki junni tonnes ñu daal di ci ànd Ousmane ànd ceeg Ousmane ñaa Amadou Ba suñu naataango yu télévision Sine Saloum opérateur économique yi nga xam ne seen bànqaas mi ngi lalu ci coopération des euh, oléagineux bu Kaolack ñoom am nañ ay leeral ci campagne de commercialisation bu gerte bi ñi ngi xam le ne lépp jaar la yoon polémique boobu ñuy wax ci problème mu blocage campagne ñun fii ci COPEOL loolu amu fi ndax su ngeen ko seetloo ni yéen a ngi gis camion gerte yi ñi ngi wàccee ni ñu doon wàccee ci commencement bi noonu la ñuy wàccee ba léegi te saa yu ñu wàccee ci ëllëg sañu fay leen comme niñ ko defee depuis le début de la campagne kon wax dëgg loolu ñuy wax noonu daal amul benn impact amul benn rëq-rëq bu mu mën a apporter ci commercialisation parce que commercialisation mi ngi dox ni mu war a doxee. waaw ñun fi fi ñu toll nii jëndagum nañ lu toll ci vingt huit mille tonnes soo ko xaymaa ci xaalis dina nekk juróomi milliards yu teg te ñu ngi koy fay chaque fois bu ñu facturer rek ci ëllëg sañu fay. jamono ji ñu toll nag ñoom jot nañoo écoulé lu ci toll ci mille 63000 tonnes ci loo xam ne huile yi ñoom ñoo ko jënd njëkk li nag soo ko xayma na toll ci fukki milliards ak juróom ci weer. instant bi ni moom wax dëgg amaguñu jafe-jafe waaw wala bu jafe-jafe amee itam daanaka tekkiwul dara mënul yàq dara daal ci commercialisation ndax comme ñun ñi ñuy liggéeyal muy opérateurs yi ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy fournisseur ñi ñuy indil ay graines. ñi ngi réceptionné ñi ngi leen di fay du ñu mën a wax ni que am nañ jafe-jafe. ci noonu itam ñoom àddu nañ ci njëg li aju ci gerte gi. waa gerte bi ñun ni comme euh, kii yëpp ñu ngi ko jënde deux cent trente mais itam prix plancher bi nga xam ne teg nañ ko nguur gi muy les deux cent dix ñëpp a ngi koy respecté donc ñoom suñu jëndee ñëw indil ñu ñun ñu teg ci marge boobu moo waral deux cent deux cent point sept campagne commercialisation euh, bu gerte gi saa su ne at bu jot askan bi euh, danañ ci euh, débat rawatina nag njëg li ba tax na opérateur économique yi COPEL bu Kaolack ñoom ñi nga xam ne na lépp ba jëmi yàllaay tey mi ngi jaar yoon ñu wax ci wàllug euh, kiw gi ak lu ñu jàpp ni mën na koo yàq lu ko mel ne euh, saxaar ñi koy euh, sooke nag am na lu ñu ci wax lu yees ne bu ñu ko defee xëy na ñi tax nag saxaar si jolli ci kiw gi danañ leen mën a gàllankoor loole ci kaw nag ku ko ci defati ku ne daal di génnee koppar directeur général bu port autonome bu ndakaaru moo ni gisee loole nag mu xamale ko ci ab seminaire boo xamante ne nii ñi ngi ko doon amal jagleel ko wàllug kiw gi ñu teewlu ko moom DG bu port autonome bu ndakaaru ci micro Demba Ndaw Au niveau des moyens techniques et financiers place pour la gestion de la pollution, bu dee lu jëm ci moyen financiers yi ak techniques yi ci wàllu pollution port autonome bu ndakaaru daanaka génn na ci ay jumtukaay yu am solo ngir lekk mën a fexe ba lépp lu jëm ci wàllum environnement ñu sàmm ko te tamit pollution bi ñu daal di koy xeex action yooyu nag jëm rek ci politique environnementale boobu li ko tax a jóg mooy fexe rek ba port bi gën a xarañ bokk ci port yi gën a set tam yi gën a aar ci wàllu environnement ba tax na nak loolu warul doy jàpp naa ni war nañoo créer tamit yeneen conditions yoo xamante ni dañuy am benn charte de gestion jëm rek ci développement durable fii ci port environnement bi di dinañ ko gën a sàmm ma am yaakaar nag ci xalaat yi nga xamante ni ñoom ñooy tukkee ci séminaire bi su ko defee ñu mën a appliquer le port concept bi naan pollueur payeur maanaam képp ku fi polluer daal nga mën a fay. donner les moyens d'appliquer au port de Dakar le principe payeur pollueur qui est loolee yitteel ne tamit euh, kilifa yi kilifa yi taxaw temm tamit ngir xeex lépp loo xamante ne nii aju na ci lu nar a yàq kiw gi jëwriñ ji njënk koom-koomu géej gi moom àdduna ci ñu teewlu ko Oumar Gueye ci micro Demba Ndaw principe bi ñuy wax nag pollueur payeur maanaam ku pollueur rek da ngay fay loolu xam naa dina génn ci recommandation yi conclusion yi ñu bëgg usines yi nga xam ni ñoo nekk ci biir port bi wër ko ñu installer ay système de pré-traitement maanaam déchets yi avant ñu koy sotti ci ndoxu géej gi ak ndoxu port bi ñu traité ko ba mu set ñu soog ko ciy def loolu nag obligation la ministre de l'environnement ngi dina ci taxaw moom direction générale port na ci taxaw ministère bi gouvernement bi yëpp dina mobiliser wu pour que loolu mën a am ñu saisir occasion bi tamit pour féliciter euh, directeur général port ci initiative bi ndax dafa bokk ci li président Macky Sall bëgg ci plan Sénégal émergent émergence mënuñu ko wax sans le port émergence mënuñu ko wax sans que le plan du port soit assaini. ren jii ci budget 2017 prévoir nañ ci koppar yu bëree bëri pour assainir plan d'eau appel d'offre daañu ko def lancer ko pour que entreprise ya koy gañe yoon yu xarañ mën a euh, defar plan d'eau bi ba mu set. ñu wax euh, ci leneen ñii moom bëgg nañu jote ci euh, kër muy logement euh, sociaux yi nga xamante ne dañu leen di tabax mooy soxna ya nekk ca Thiès bëgg nañu nag téeméer boo jëlati ñaar fukki ak juróomi ñu jagleel leen ko ñu ngi ko wax ci ab boo xamante ni ñi ngi ko doon amal ca Thiès ñi ngi sàkku nag ci nguurug Sénégal mu gunge leen ci mbébét boobee nga xamante ni am nañu ko Cheikh Anta Diop Sey Latira nekk la ñu jóge ci diwaanu cees di ay soxla yu bokk ci groupement féminin yi rawatina nag ci ay coopérative d'habitat dikkoon doon waxtaane joxe seen xalaat ci jafe-jafe yi nga xamante ni jigéen ñi daañu ko am ngir amas pàkk wala fu ñu dëkk fexe ba jigéen ñi jote ci suuf si rawatina nag ci ay dëkkuwaay yu mucc ayib ñuy koy wax ay logements sociaux loolee la soxnay Thiès dajaloo doon ci waxtaane ngir nag jigéen ñi ñu jox leen seen gëdd bañ leen a bodd ci mbir mi ñoom sax ñi ngi sàkku ci jëwriñ ñi nga xamante ni moom moo lépp lu jëm ci wàllu dëkkuwaay ñu sedd ci jigéen ñi. président Macky aussi wan na na volontaire li ci des nag moo de ñu accompagner ko bëgg nañu bokk. bu ñu joxee vingt cinq pour cent dinañu dem kon na fexe ba bépp promoteur mën a jox doomu Sénégal bu jigéen vingt cinq pour cent ci projet bépp bu mën a am moom ci boppam ci politique sociale am gouvernement bi taxaw ci loolu ngir ñu mën a am tawféex ci revendication bi li ñu ñaan moo di ñu fexe ba ñu am vingt cinq pour cent ci logement yi au moins li ci des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 ba pare jëmale ko ci président de la république. ci daje bi ñu amaloon fii ci diwaanu cees ku ci nekk yuppi nga li nga xalaat bu ñu ko defee de nguur gi dina leen gestu delloo leen cër bi nga xamante ne moom la ñu yeyool muy nag jigéen bu nekk am ab pàkk wala fu ñu mën a dëkkee Cheikh Anta gannaaw Thiès ñu wàññeeku ba Rufisque askanu Mandeng ba fa nekk newul tekk tekkaaral ca la xew ca Gambie ndax loolu it yitteel na leen bu baax a baax ci ab manifestation bu fa amoon ci wàllug euh, caada ñoom nag euh, ñi ngi sàkku daal euh, jàmm am ca réew réewum Gambie Ousseynou Thiam Bira Diagne lii di communauté Mandeng bu diwaanu Tëngéej nag mi ngi bàyyi xel bu baax situation bi nga xam ne nii moom moo am fële ci yi ci bëccëg goo xam ne gi dañ cee amoon ci wàllu cosaan ak aada ñuy ñaan nag jàmm rek am foofu waaye tamit ñu respecté la tukkee ci lii nga xam ne lii mooy élection ya fa amoon. communauté Mandeng bu ñu sañoon jàmm rek mooy am foofu comme ni ko communauté internationale bi yëpp bëggee ndax Sénégal ak Gambie gisoon naa ku koy nattable ci ak làmmiñ waaw ndax Gambie boo gisee ni mu bindoo ci biir Sénégal dafa mel ni gémmiñ ak làmmeñ kon euh, lii nga xam ne lii ñun moom lañu bëgg bu ñu sañoon jàmm kese kese kese kese kese mooy am Gambie ndax jàmmu Gambie mooy jàmmu Sénégal waaye nag bu ñu demee ba sës am naa yaakaar ne def lii yoon wax rek moo ci moo ciy des. gannaaw bu mu ñëwee nag pare ne boobu manifestation ki di responsable APR bi nag di wax lu tax mu taamu boobu communauté. dafa nekk li nga xam ne moo jiitu te mooy mujj ci la ñuy mën a bu fekkee danga nga bëgg ñëw ci benn gox benn réew bëgg a def développement te xamoo la ñu cosaanoo xamoo lañu aadawoo ci ay erreur ngay dëkk kon am na solo. communauté yi wane ñoom fa ñu jóge la ñu daan def démb parce que li ñuy wax ci sosaan ak aada mooy tey euh, le passé mooy dajale présent pour ñu jëm ca kanam. mu doon communauté boo xam ne bii mu ngi bàyyi xel fële ci Gambie di engage wu nag ne dina gunge lii di mu mouvance présidentielle bi jëm ci lii de jongante électorale yi nga xam ne nii ñu ngi koy waajal. Ah, tàggat yaram sunu gaynde yi def nañu seen tàggatu bu mujj ah, tey jii ñu war fee bàyyikoo nag ah, ca ngoon ngir wutali fële di Congo lu aju ci entrainement ba nag tey jàpp leen ni wàllu technique bi moom la ñu gën a liggéey ngir nag am fa nga xamante ne rek fa la ñu jëm Lamine Gassama moom defenseur la moom nag daal dina delsi ci match maanaam poule match de poule yi nga xamante ne war nañ ko amal nee na nag match yooyu jàpp leen ne du yomb waaye daa ñu def seen kéemtalaay kàttan ñu teewlu ko ci micro Mamadou Fall. Très positif parce qu'on a fait une, une bonne campagne on a fait on a réussi à, à gagner yaakaar génn fii yaakaar nañu def Coupe d'Afrique bu mucc ayib am nañ yaakaar lool te xam nga ni euh, faw nag ñu dabu rëccu rëccu yi ñu defoon euh, ca kaan bi de passé ndaxte faw ñu racheté wu. faaw ñu liggéey rek ngir performant liggéey gu bari la laaj déglu itam coach bi lu baree bari tey séance d'entraînement bi ñu teg ko ci wàllu plan tactique xam nañ ñi Coupe d'Afrique bi ñetti match yu njëkk yi match yu compliqué lay doon waaye liggéey ngir rek gagné match bu njëkk bi ndax moo ci ëpp solo boo ko gañee mën nga am chance nga mën a qualifier ci ñaareelu tour bi. niñ leen ko waxee tey ci ngoon lañ fi war a bàyyi ngir wutali kongo euh, démb nag euh, jot nañu raay euh, réew mi ci loxoy njiitu réew mi Macky Sall ñu daal fay wax lu am solo ñoom sunu gaynde yi ne xam nañ nag li nga xamante ni moom leen moo leen di xaar ca Gabon te ñu def seen kéemtalaay kàttan raay boobee démb lañu ko jot ca pale présidentiel Cheikh Tidiane Diaw. ñii bàkk bi jib na message bi leer nañ Coupe d'Afrique nag daanaka askanu Sénégal yëpp moom lañu bëgg ak i président de la République waaye tamit am na leneen lu leen war. au Gabon. ca Gabon war ngeen fa bay seen wàll ci waar wi bind page yu gën a rafet ci football bu Sénégal. waaye tamit yëkkati raaya réew mi ci kaw ca kaw kaw ci sportu Afrique waaye yëf yi yemul foofu ak lépp lu mënti xew tamit war ngeen fa am comportement bu rafet. irréprochable. message bi mu mel ni gaynde yi dégg nañ ko bu baax. lii moom tey ñaax la woon vraiment ñaax nañ ñu donc xam nañu xam nga nga nga am euh, soutien wu sa gouvernement rek dafa neex am aussi soutien au peuple sénégalais bi donc euh, instant yi daal ñun ñoo ci des te incha allah bu ñu demee dinañu dinañu def lépp lu ñu mën incha allah pour euh, pour def performance yu baax foofu. ñu gën a motiver gën ñu gën ñu yokk jom parce que xam nañ xam nañ ñu fay donc ñun pare nañ pare nañ pour def tout pour pour xeex. pour pour dóorante pour pour def pour andi pour andi ndam bi incha allah. c'est toujours des moments très très émouvants c'est nag dafa neex ci xol président de la république encouragé la motiver le ñun yëg nañ ko bu baax ba tax na tey ci jaratul sax may motiver samay joueurs bi ñu dégloo discours bi. aujourd'hui je pense qu'un discours comme ça j'ai même plus besoin je veux dire de motiver les joueurs. Youssou Ndour moom tamit ñëw ak ay tegtalam. sénégalais lu ñuy liggéeyanti dina la ko lu ñuy xëccoo du ko indi mu bëgg mu nekk message bu leer nàññ ñun dañu war a wane yéen da ngeen war a wane nekk lu ñuy xëccoo mën nañ ko indi lead vocal bu Super Étoile ànd ak uh, Oumar uh, Pène uh, dem nemmeeku suñu gaynde yooye ca hôtel ba ñu ne ba mu génnee nag moom Youssou Ndour am na kàddu yu mu dénkaane sas na nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu gaynde yi nañu def seen kéemtalaay kàttan ba daal di fay nekkal askan wi rawatina réew mi ndax am nañu lool yaakaar ci ñoom te lenn képp la leen sant fu waaye mën a ne na nga def sa kéemtalaay kàttan ngir gagné ñu teewlu ko moom Youssou Ndour ci micro Daniel Diouf. dama ñëwoon ànd ak suma xarit euh, Omar Pène bi ñëpp xam mu nekk euh, musicien bu mag mais nekk ku bëgg sport dinaay faral di moom di échanger ak moom bu équipe nationale di di kii ñu àndandoo ñëw pour nuyu leen tàggu leen wax leen euh, suñu yaakaar ci ñoom wax leen ne ñun liggéey ba ñu mësti di def pour coller. Euh, euh, waa réew mi peuple bi ak équipe nationale bi dinañ ko continuer di def di veiller wax leen aussi euh, yaakaar bu nu am ci ñoom pour que ñu gën a rayante pour xëccoo bi nga xam ne dañ ko am ñu jël ko waxleen aussi que ne jafe-jafe yi ngay gis des fois léeg-léeg club yi di ko def di def pression ci joueurs yi loolu nañ ko teggi seen bopp ñu joue pour seen équipe nationale parce que gis nañu ay joueurs yoo xam ne ñu ngi gën a am màqama bi ñu tegee seen équipe nationale ñoom tamit Aliou répondre na réponse bu baax a baax wane ne que seet bi kontaan nañ ci te am nañu confiance joxante nañu rendez-vous dañuy suivre détail yu match yëpp di suivre détail yu déplacement yi ba pare nag ne kenn du ñu kenn du ñu euh, gagné en dehors moom loolu duñ ko nangu kooku euh, dañ ci war a taxaw waruñu gagner en dehors du terrain et ça euh, je pense que nous ñun ñëpp d'accord nañ ci kon nag yàlla nañu yàlla jàppale euh, vraiment ba nga xam ne suñu yaakaar ñun ñëpp mu bañ a tas. yàlla jàppale sunu gaynde yooyee war fee bàyyi ko tey ci ngoon ngir wutali fële euh, Congo yéen a kaay seen xët yu njëkk ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf parti socialiste tas na juróom-ñeent ci ñoom ña nga ca loxo yoon ubbi leen l'observateur Bamba Fall Ba Basirou Samb Serigne Saliou Mbacké Diop Birakan Ndiaye Abdourahmane Ndiaye Cheikh Tidiane Sall Abdoulaye Wane ak Ahmed Diouf ñoom ñëpp yéen kaay bi ne nañu police centrale la ñu fanaan biig coow la woon ca maison du parti socialiste juróomi fan ci weeru mars moo jur lii yëpp ne ginnaaw enquête bu yàgg te yaa waa brigade des affaires générales ba ñu ca noppee dañoo jël dossier bi jox ko procureur de la ak juróom-ñaar fukk maanaam 170 nit yoo xam ne woolu nañ leen ci yoon doon leen déglu ci enquête ba ba Serigne Bassirou Gueye jotee ca dossier ba ca la santaane ñu dem jàppi ñoom Bamba Fall defeere leen tuuma yi ñu gàll ci seenu ndodd moo di tentative d'assassinat violence et voies de fait ak menace de mort maanaam tëkkoo faat bakkanu nit ki fitna ak dina say pexe ngir boom doomu aadama ba ñu leen defeere ca parquet ba ci ngoon gi ñu waroon a janoo ak siste instruction bi gise ba la ñuy a janoo ak sis bi journal bi nañu léegi nag ci seenu ndodd am ndax day dëggal tuuma yooyee tuuma yi bu dëggoo l'observateur nañu perpétuité mu di kaso ci seen ngiru dund mën na caa am démb ca tribunal ba ñu yóbbu ñoom Bamba Fall police centrale bi dañu doon daanuy xam ak di jooy ba ñu naan ci yoon retour de parquet moom la Bamba Fall compagnie am démb ne enquête ñetti jegeñaale Khalifa Sall police centrale la ñu fanaan démb tey jii ci alxames yi lañ leen di yóbbuwaat tribunal ngir ñu dem janoo ji ak siis bi la tribune nañu jege ñaale Khalifa Sall yi am lante ak yoon yëfee ma ngay wéy ginnaaw Barthélemy Dias léegi Bamba la maire Médina bi jege na lool kasu bu rëbës bu ñu paree ci moom nag Khalifa Sall na waaj te xam ne ci moom la gaa jëm li am ci parti socialiste wal fajiri li mu ci gis moo di nguur gi moo bëgg a néewal Khalifa Sall moo waral mu téye Bamba ak i gaayam te jege nañ kaso lool journal bi di wal fu ne ñu ñooñe ba lu ñu fay mën di a a ñoo xam ne jàpp nañu leen pexey boom nit mu di tentative d'assassinat lañ leen di toppee Bamba Fall Birakan Ndiaye Basirou Samb ak yeneen juróom-benn militant yu parti socialiste journal bi nañu tey jii la a dugal ne moo leen feeñal moo wax enquête kat yi réunion bi commando yu Khalifa Sall yi doon amal foofee directeur de cabinet bu Khalifa Sall jarbaatam maire bu Médina di Bamba Fall ak yeneen juróom-ñaari militant yu parti socialiste journal bi ne nañu jàpp nañu leen Barthélémy Dias nañu ci mu njëkk yéenekaay bi li am yëpp bu Ousmane Tanor Dieng la Rewmi Quotidien nañu coow li am ci biir parti socialiste ci layo bi nag la parti bi Léopold Sédar Senghor bi doxee tasaaroo ba faw Les Échos nañu Bamba Fall ak ay co-accusé am nañu benn tànk ca kaso bu Rebeuss ki leen jàppalu di procureur de la République Serigne Bassirou Gueye Direct Info ci moom la xëye xëye ko Serigne Bassirou Gueye moo di kan journal bi nañu ko xam droit la te di ko jëfe mi ngi jàngee ci école yu mag yi Serigne mooy kàdduy maître Jibril Waar yi ci témoigné yëral xët mu njëkku yéenekaay bi nee yoonu yokkute gi ñu doon wax ñoom ñi nga xam ne bi dara dul dara ñoo fi nekkoon ñoo sos APR ànd ak président Macky Sall gisuñu ko yëguñu ko li am daal mooy nu ñu fexee seppi gars yi taxawal APR sànni leen fële maître Jibril Waar nañu président Macky Sall daa mel ni kudu sa taxaw ak ñun nit ñi di ko gis boo demee ca palais ba tey noonu démbam yéeg ñi ko doon saaga ak di ko xaxar ñoo fa fees dell waaye ñun ñi taxawal APR mosuñoo amub di leen fat maître Jibril Waar ne wàlla témoigné li président Macky moo di benn transhumant boo dalal fat ko ñàkk nga junniy militant ndaxu njëppite jaloore le président Macky Sall bëgg ci gaynde Sénégal yay dem ci coupe d'Afrique ba ca Gabon le soleil nañu démb la leen jox drapeau national bi ci loxoy Cheikhou Kouyaté mi capitaine bi la ko teg ñaax bu baax a baax ngir ñu gën a góorgóorlu ba yóbbu raay réew mi fu kawe ci déndub Afrique bi président Macky Sall mu jox drapeau national capitaine u yi ba mu tëye président Macky Sall doj nay gayndeem sàkku na ci ñoom ngir ñu góorgóorlu ba def lu raw la ñu daan def l'observateur xana ñu waaye Youssou Ndour ak Omar Pène fekk gayndey fa ñu nekk wax leen lu daw yaram Les Échos nañu remise drapeau bi woon démb muy Macky Sall di Youssou Ndour ak Omar Pène doj nañu gaynde yi bu baax a baax Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu di la jaajëfal mbokk yi nit cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dig na leen daje 19 h ak 20 ci yeneen jotaayu xibaar kenn dalug jàmm ak programme yu télévision Futurs Médias